mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dellusiwaat ci seen téere bi ñuy wax xoratul xëy ni muy téere sëriñ sooy bu ñu ciy ànd ak yéen ci guddig naafile yi guddig weeru koor gi ñu ànd ceeg seen site bi ñuy wax sunu acte tey nag ñu dikk ci guddik fukkeel ak juróom benn fukkeel ak juróom benn dinañ ci jàng julli ñaari rakka rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha ak isaa sursilati fukki yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddik fukkeel ak juróom benn ci julli ñaari rakka bu nekk nañ ci jàng fatiha ak